kooru Baye Seex kooru Baye Seex Seex de def na ay pexeem ba yegg mbuur tey sant naa saagaalu coona far na teer Baye Seex de def na ay pexeem ba yegg mbuur tey sant naa saagaalu coona far na teer peex maa ngi jolli bàyyi koo wetuk ndi joor géej gaa ngi du duus jaww ji amul puseer fii daal ko am as tuuti man fee baax na ci ab sëriñ te gën ci fóore xel may xalaat bis ak dem soobu géej ngir tey ndogoo ab lakk jën moom la ne ngiic seex daal ni xàmmee nab jalañ akub yabooy ndax doomi moolkat wërta bi géej ji sooy ngir daana sëmb ci bassin daa sëmb déeg kon ku ko def ab capitaine gaalam du diig mu daldi ànd ak gaal ga tëmb mbégtee ma far coono ba woon ca démb géej mbambulaan géej mbambulaan yaay tab bu teey yaa jar di way sab yamu waay lottal na ak ñee fi way yow géej mi seexi bàmba mbër ma julli woon yoonu sa yaay yar jën wu mag wee ko wannoon seex joow ba aalu daldi as di sëlmu jaarum borot jaaxle ga tax mu dëkk mu jaarub xaqiiqa bii ma doon ne woon ca baay jënd ko reesal capitaine may leen ma waay jaarub xaqiiqa bii ma doon ne woon ca baay jënd ko reesal capitaine may leen ma waay bam ne tëmbax ñaari minit biiram ba fees mool yaa ko wallu waaye kon du gis tefees sept heures jotee ba teg lu mat vingt cinq minutes sàppoor ya yegg si jël seex ndaxu xexet bëgguk ndawal bu mu la taxee galgalu ñay sab tànk damm mbaa sa ndigg yaa ko tey sab tànk damm mbaa sa ndigg yaa ko tey allahumma